te jéem si jëmm yàlla ja amul baat amul xaraf amul ndigal jéem nit amul suñu dalee ci ñun amul wax la ñuy jógee Moussa ay léppam ay napp la woon ba mu dégg wax ja waaw loolu mooy wax yàlla ja nga xam ne moo jagoo ci jëmmam jëre ñu ba ci ñu nit ñu ngi déglu ci jëm la ñu àjjana te mun ci ne ko dee war a lay ko ñu ko xara de yàlla tono ngir bu nekk ci dina fi ñu ñu wala war yàlla ñu jëkk ay lay ba da ci ci dama la ñu ñu ci de bu tax yàlla yoonu yoonu ci yàlla ba mu bind doomu aadama doomu aadama ju nekk yàlla jox na ko ci xel ak kattan ak xam-xam lim mënoo xamee sax ne yàlla am na ndax danga gis asamaan ak suufam li nga xam ne moo nekk seen diggante ci mbindee da nga xam ne lii moo ay jëf la sa toog bi ci kàddu saa yi nekk war na lu sosu la lépp lu sosu lañ koo def lépp luñ def am na ku ko def ku ko def ka ko def moo di yàlla tax na ba xelam doomu adama mënoon naa dem ba xam ne yàlla am na waaye foofu rek la mënoon a yem nag waaye ndax yàlla war nañ ko jaamu lii lañ ko war a jaamu taxaw ak julli xoor weeru koor waaw génne asakal ni ko yàlla waxee yàlla daganal ak yéen xaraamal ak lu ñu saye ci ko jaamu ak lu ñu saye ci ko mooy loolu nag moom mën na kan mënu seen liggéey yàlla yéen itam yonent yi liggéey mënu ko mënu ko mënu yéen a xam loolu ne moo tax yàlla yéen yonent yi ñoom ñu dugal nag sariyaat yi dara ca noonu ba ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dugal na nag léegi nag kenn mënu si ko amul lay képp koo xam ne di kan nga tënkoon yàlla sa tool gëm woon yàlla tëkk na yàlla loolu damaa xamutoon yàlla ñu ne yónnee naa yónnent ne su ko defee nag kenn lay dagg de waaye su yónnee su yónnee sa yónnent kon nit ñi daan mën a am lay ne dañoo réer de waxtaan laa nafa ba yàlla xam ne daa ji nekk nguuram ak ci laa ji karam ci nekk nguuram wa laa ci laa wa sadi ko ko ko wa sa wàcc ko da nga xam ne ñu yow dina ñu ñu yaram ñu sa laa yow salam waaw mo fo jëm nag ana ko lay seedeel ne sa yónnent bu dëgg la ñun ñu jàngoon te réew jëkk ñu war a war a seedeel te ñu lànk nañ waaw ku lay seedeel nag buur ne laa turi laaw lu fi nekk yàlla moom ustani dana ñu jural sa yónnent dina am sala salam moo koy ilay ko jëm ci yow ci alquran waaye yàlla moom wàcce na ci yow alquran joo xam ne nekk na muy gisaar joo xam ne képp ku seet alquran rek xam ne ci dikk ci dikk téere bi waaw yónnent sa dëgg la am sala wàcce na mu ko da lii ngir ñu am lamboo xam-xamam rek ndax alquran bi de képp koo xam ne dégg nga ko te xam dara ci waxi aram ci gënee ci gëmu te joxam da nga xam ne lii di waxi mbindeefi lii waxi yàlla mbindeefi rek la kon nag alquran rek doy na seede ne yonent bi yàllaa ko yónni wal malaayikatu sa malaaka ya yastabuna ko nañu seede ñu yàlla malaaka yi itam seede nañu yonent bi yonent dëgg la wa kafaata doy na sax bilaay ci yàlla sa yonent yàlla seede seede woon sax yooyu yëpp bañ a am yàlla moom seede na ni wala yónni de te boo xam ne benn seede la moom seede yàlla yi doy na inna la fi naka ñooñu kafaroo waddinoo wasaddoo kañ seet ñun ñaan sabilillahi ci yàlla ci ñëw islam ndax mooy nëbb doon doon nëbb melaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak baloo réer ni ñu balaa nga réer balaa dem gida yi sarik dëgg rek inna la fi naka ñooñu kafaroo waddinoo yàlla wasala moo tañ coow yonent bi ba nëbb melaw nga lam yakunillaahu nekkatul yàlla li yaxtara di baal law ñaa leen wala li yahdiyahum di jaagan bu mu jubal leen tariqan yoon de yàlla du leen baal du leen jubal ñu jëm ci benn yoon illaa tariqa jahannama nara yoonu jahannama yoon wu àggale jahannama rek la yàlla jubal de waaye du leen jubal weneen yoon al jina ndik min diwo jor saa ci jahannama abaren defat wakkaana ma suufa saari ko lay yeeso ndi ay jettana ala ala ala loolu yomb na yàlla yaa ayaa naa fi yéen makka ab jaakum dikkal na woon rasul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam balaa ko mbir ñaa ji lamboo dëgg mu nga dugg ci kaw borom seen fa aminoo dëggal leen yonent boobu xayran julli leen aw yiw ne mbaa fa aminoo dëggal leen yonent boobu xayran mu nekk di aji gën lakin ñaa leen de su leen dëggale yonent boobu ba noppi def leen aw yiw de mooy fàtt leen yàlla rek wala su leen dëggale yonent boobu kon dana nekk lu gën ci yéen de woon takkroo ndax ngedd ngeen yaa yonent bi xëy na laa naka yàlla xëy na billaahi naka aji naka la ñaal yàlla maa fi samaawaati la nekk ci asamaan yi juróom yaar wala nekk ci juróom yaar su fekkee yedd ngeen ko nag ba yàlla moo xamul soxla ci yéen ak seen ak jaamu de moom asamaan yi juróom yaar suñu juróom yaar ak li mu làmboo ci mbindeef yëpp moo meelam la mbindeefam la ay jaamam la wa kaana laahu matagan yàlla alimam de aji xam ay mbindeefam حكيم لا يقرن في جسمهم يا أهل الكتاب إيه من الجنون لا تخلوا من الجنون loo nekk lu gën ci yéen de wala takkuroo ndax njabdi ngeen yaa ngi yonent bi yéen laa naka yàlla xëy na billaahi naka aji naka la ñu yàlla yàlla maa fi samaawaati la nekk ci asamaan yi juróom wax wala nekk ci juróom yaar su fekkee yàgg ngeen ko nag mbaa yàlla moo xam soxla ci yéen ak seen ak jaamu de moo moom asamaan yi juróom yaar suñu juróom yaar ak lu mu lamboo ci mbindeef yëpp moo melam la mbindeefam la ay jaamam la wa kaana laahu matadan yàlla aliman daa ji xam ay mbindeefam ak yéen daa ji xarañ ci jëfeefam de yaa ahlal kitaab ee yéen ñoom ñoom juróom laa taxloo bu leen jéggi dayoo ci diine ci ci diine seen wala taxloo bu leen wax na laa wax yàlla ci leen xaq na rek wax dëgg de ee yéen ñoom ñoom juur nasara bu leen wax bu leen hëppal bu leen waxal yàlla loo xam ne xamu leen ko mooy di ko sàkkal bokkaale ak doom innamal masiihu naka masiihu Iisa Iisa ibnu Mariama say doomu Mariama rasulullahi yonent yàlla la Iisa waaw lii rek mooy maqaamaam yàllaa ko yónni naka mu yónni yonent yëpp wa kalimatuhu baatam la alqaa bu mu jotal ko ila mariama jëm ci mariama baatam la kun waa rek mu nekk jaarale ko nag ci mariama wërëhun borom ak raxoo la mu ngi tukki fa moom Isa roxom yàlla la mu ngi ñëw yëpp ci Isa du leneen baatam yàlla la roxom yàlla la yonentam yàlla la waaye nag du li ngeen wax ñu ne doomu yàlla la ñu ne yàlla yaatu la ñu Isa dañ la ji yàlla yàlla la Isa yàlla la ndayam yàlla la ñu ne Isa ji boppam sax mooy yàlla beneen yàlla amul ñoom ñetti kuréel yëpp réer nañ waxuñ dëgg de li yëpp mooy Isa yonentam yàlla la baatam yàlla la roxob yàlla la xarame rasul amoon na docteur ab tubaab bu xaleel boo xam ne moo doon docteur am bu sàtt ko lool sant ko sant bu ci bu bañ mu ne ko bay diine nasaraan te ñëw ci diine islam mu bañ mu neexal neexal mu bañ jëkk mu ne ko lu tax doo dugg ci diine islam mu ne ko diine bi ma gëm lii sama pas-pas doon joxe bi def ko dëggal mooy ne Isa doomu yàlla la te alquran wax na ko aaraw na ko su ko alquran waxee mu ne alquran wax ne waruhun minhu Isa ak roxo la gu bàyyi ko ci yàlla mën na nekk roxo gu bàyyi ko ci yàlla nag lu mu mu nekk di xaaj ci yàlla te comme doomam la aaraw na daal di gëlëm dajale foo dee ne leen sant leen na julleen ci ñi nga xam ne moom la tubaab bi leen di ci man ñu ne ko ñu ko benn sëñ ne ko moom rek a mën a tontu laaj boobu mu daal di ko xool mu ne fi ma nekk nii mënu maa koo tontu waaye jiitu woon na ca asal ne laaj bii danañ ma ko laaj fii ci sa kanam du ma tontu léegi waaye gëñ naa ci yàlla du ma lekkati du ma naan lu may bata laa ko tontoo ubbi leen ma néeg boo xam ne man rek a fay nekk ñu dul ko ñu dugg waaye dal dal ci bopp kaanu bi di tare alquran baax ci saaru baax ci saaru jaasiyal wa saxara lakum maa fi samaawaati wa maa fi l-ardi jamii'an minhu mu ne hubbi leen ñu hubbi mu ne tontu la ñëw na su fekkee ne li yàlla wax ne Isa minhu ji yàlla wax ci xaq Isa tax na muy doomu yàlla kon yàlla wax na ne mboolem asamaan yi juróom yaar ak suuf juróom yaar ak liñ làmboo yëpp moom itam ci yàlla la tukke kon nag Isa di doomu yàlla mbindeef yëpp doomu yàlla lañ nasaraan ba daal di tuub fa aaminu dëggal leen billaahi ci yàlla wa rasulihi ak yonentam wala taqulu bu leen wax salaasa sunni yàlla yi yàpp lañ de bu leen wax ne yàlla yi yàpp lañ ne yàlla yàlla la Isaa yàlla la ndeyam yàlla la in taxaw day leen waris loolu xayran dikk leen aw yiw lakum ñaan leen de mooy wéetal yàlla innama allah naka yàlla ilahun yàlla la waaye duñ jëdi jànni subhaanahu subnama salam de am yakkoona ci bu nekk law ñeen ko wala duñ doom law ñeen naka maa samawat wa nekk ci asamaanu juróom yaar damaa ko gardé nekk ci suuf juróom yaar moo ci mbind ak ak moomeel ak ak njaam ak moomeel dàqonte naa ngeen ak ak ndoom de wa kafaa doona bilaay ci yàlla wakiilan ci aji seede loolu la de lam yastankifa jambulu cib almasihu masihu ci Iisa am yakkoona bu mu nekk naa dem di jaam ilaahi ñeel yàlla de Iisaa ci boppam yéen a koy waxal doomu yàlla ak yàlla waaye wax nga lu mu waxut de Iisaa day jàpp ni nekk jaamam yàlla nekk di jaamam yàlla waaw moom moom lañ ci solo de wala malaayika di jaay leen malaaka ya al muqarrabuuna yooyu ñun jafe ñoo ko moom de malaaka ya muqarrabuuna sax waaw jàpp ni nekk jaamu yàlla de loolu la ñuy tafsir ci kaniku ba ne malaayika yi ñoo gën yonent yi li yàlla wax ne Iisaa jàpp ni nekk di jaamam yàlla hatta malaaka yi sax jombru nekk di jaamu yàlla nekk di jaamu yàlla moo tax ñoo gën pas-pas dafa réer ñu ne malaaka yi gën yeneen yi ñu ne jiiri la gën yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sukkandikoo waaw mu taxin sama am ñu ne ma saa yi ñu ma jooni yàlla tagg na jiiri ci ay melo yu bari ci dàqal yeneen si ak jinne waaw ñu ne yeneen si moom ak jinne lañ ko dàqal melo yu mag yi jiiri lañ ko melale xanaa jaamu yàlla xanaa ji def yàlla melo yu yeneen si melo waaw mara mag bi jeex foofa ñoom waxoon nañu rek ne yonent bi jinne ko jàpp yàlla di weddi loola waaw mu indi baat ba waaye du jaage nag waaw ma xamam bi ma xamam bi lii rek li am nag mooy malaayka yi seen jin bi ñoom ñëpp suñu àndee ñoo gën doomu aadama yi def mbooloom malaaka yi ñoo gën mbooloom nit ñi ndax mbooloom nit ñi ay wàññee ko ngi lu bon a ngi ci malaaka yi ñoom lépp lu sell la ba nag suñu jàngale yaari mbooloo yi mbooloo malaaka yi moo gën mbooloo mu ñu rek waaye nag ci biir nit ñi suñ sàmmee mën nañoo sàmm ay benn benn ci ñoom ñëpp ci ci nekk moo gën malaaka de loolu mooy wët seen xamoom moo gën suñu xamoom waaye xam nañu ko soosu yoo xam ne ñoo leen gën ñoom de naka yàlla waxee walaay kam karit bëreeti dama ñëw sam cëg te jàmbalu na mu ma ne baada tey ñu wari sa jaamoo moom yàlla waaye sax de tam rey ni parce que soo xam na moom fa nga leen réew jëm ci moom jam leen def ñu boole ci àlaxira rek te amal la si na ndaa ñaane amanoo gëm nañu amalo tañ def salaat yi farataay naafile te yow si yéen borom matala jafe jorom yoolu jëf seen def waaye si ñun tam doon leen ñun tam suñu jëf yoon woo loo xam ne bët musu ko gis nopp musu ko dégg na ko topp ci xarab doomu adama de wa amal la si na ndaa ñaane istan safo jàmbal nañu wastakbaru tañ réew lu taxaw yàlla te yaa si boom dana mu dugal leen akaalam dugal alimu daa ñu nekk di sama safara wala yéen ñu am ci wala ñu leen ñu doon laay di yàlla wala en aji jañal la gën a ma gën a leen dugal ma wala ma seen dugal leen aji seen dugal de yaa yaa naa fi lim ñu ak yaa akum di kan leen burhanun kaay ci yees la bi kum di ko ba am seen de mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ee lim ñu yàlla yéen ñu ci yéen ak yéen sama ko xam ne waxuma leen ne borom borom seen taan la borom kaay teef la waaye moom ci jëmmam waaw tey nga dem mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekkal bi dem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa yónni yonent yi jox leen ay kéemtaan kéemtaan ya nekkut ci seen jëmm Iisaa yàlla wàcce na ko saaba ji jóge ci asamaan ñëw Saalihu yàlla jëlee na ko jëlee ci dëgg Ibrahima yàlla seddal na safaraam ñun sax ka yàlla ñu ko géej gi mboolem yonent yëpp kenn am nga sa kéemtaan yonent yàlla Muhammad nag yàlla dafa def ay kéemtaanam ci jëmmam de léppam kéemtaan la ay bëtam kéemtaan la ñaari bëtam yi daana wax ne xamara leen seeni sappe te xam leen ne dama leen di xool ci gannaaw ni ma leen di xoolee ci kanam yonent moom rek am bët yoo xam ne dafay xool ci kanam gannaaw ni muy xoolee ci kanam ñaari bëtam yi kéemtaan la bëtam gisam yàlla mu ne maa saaxal basaru wa maa saxaa maqaama ba Muusaa daanoo tam moom bëtam rafut sax bëtam kéemtaan la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bakkanam kéemtaan la kéemtaani bakkanam daana wax ne xasaw yàlla amay xasaw ci wàllu yaman te booba wàllu yi wax weesu xaram yi ci seen ci jamono si dina am loo xam ne taabi wala fekkewul jamono yeneen si moom la namoon meral yam ko meraloon ba nga xam ne gisee nga jóge weesu xaram yi te dina am war ba dafa gisee moom lépp la yeneen te waxoon xasaw yàlla amay xasaw ci yaman kooku mooy moo gisaati bakkanam moo gisaati ay loxoom it moo gisaat la ñii moo gisaati loxoom loxoom a sànni woon seen kër ba mu fees seen xam bañ fees ak suuf mu sànni ko xaram makka dàq leen de yàlla ne wa maa ramayta iz ramayta walaakinna Allaaha ramaa loxo bi nga xam ne bu sànnee rek yàlla sànni bu jaayante yàlla jaayante boobu loxo yi du kéemtaan la xalam yàlla ne ma sababtu fu'aadu maa ra'aa ay tànkam moo taxaw ci jaww ji bu yëngatoon moom mu ne ko tëpp ne ko dalal kenn nekk ci sa kaw li nga ab yeneen ci am dëgg laa ko nañ xaw a koy def waaw u daldi dal dënnam giraa julli dënn nga dafay yëngatu na fekk leer a day waña waaw ngir ragal am ragal waaw boromam rek yeneen ci boobu nga xam ne mboolem cëram yëpp lu ci nekk kéemtaan la ba nga ci jëmm ja lépp di kéemtaan moo tax jëmmam ne ñox kat ba nga ko gisu waaw yàlla asamaan juróom yaar ak suuf juróom yaar baa ba ci waaw xaaba xaw sa ñu leen waaw aw at naa àgg sax ci aw at naa yonent boobu nga xam ne ay kuram lépp li ci ne kéemtaan la yéen ñi dafa di di kéemtaan la yéen yàlla yéen ñëpp ci yéen yonent bi borom kéemtaan yàlla yéen na ci yéen jëmm kéemtaan mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa anzalnaa kan wàcce ilaykum jëm ci yéen nooral leer mu jéem di wàcce ci ñu wàcce ci yéen téere boo xam ne ak leer la mooy mooy alquran te am na dajoo laa ñaane amano gëm nañu bilaay ci yàlla waxtaan waxtaan sa moomu dañ jafandiku bii ci yàlla فسير كلهم أن ما قرأت لهم قرآن في يوم لا يؤمن به الجنون وقد من أبهم ويهديهم غنم جبلهم إلى جنة المعون صراط الله المستقيم ولا يجيب ذلك المؤمن الإسلام يستقون قد من يوم بلولا من لا يلعب ولا يلعب كلاها ويقال لها ولا يسيكم غنم وجولهم في كلاها في كلاها إن على كلام على كلام إمرؤ على كهارة نمو ليس له ولد ينعق ولد دام بلا الواجب mooy talaa la wala wala dañuy ànd ak waxtu mbokk mu jigéen ci ñaari baay wala ci baay rek talaa ñëw na ko nit maa ko rafet benn wala ñu bay rek ñu wax ci jaado rek waaye ñu Abdoulaye dafa wax ko yeneen ci seetlu ko mu ne ko maa ngi bay yàlla ju bari te bayuma doom bayuma baay ndax ma tabax ko lépp yoon yàlla mu ne ko déedéet mu ne ko ma tabax genn wàll yi mu ne ko genn wàll bari na waa ñaari suñu la jëkk mu ne ko bari na mu ne genn wàll mu ne ko bari na mu ne ko suñu mu ne ko suñu waaye suñu sax bari na nga bay say dono ñu xamal moo gën nga bay say dono ñu yar waa nit ñi waaw mu nekk mu nekk nag waaw xaw ma ku mu war a doon man xaw ma doom waaw xaw ma war guddee waaw benn jigéen rek laa xam mu abakat waaw yàlla daal di wàcce laa aju nag waaw ne mbo jigéenam boobu moo ko war a doon de mooy jël genn wàll ak alalam oo moom mbokk mi naka noonu la yari si ah dana mu doon ko ndam yàq ndam nekk ndax amul ko wala mu doon bu fekkee ni mbokk mu waaw jigéen ñi jëkk a dee itam mbokk mu góor yi waaw dana ko doon de moom dafay doon lépp bu fekkee ni amul doon insaan fa leen nekk nañ ñoom yaari bokk yi jigéen gis na tey di ñaar wala maa ñëw na leen tamit ay ñaar tamit naka jaabir waaw ay bokk la bàyyi woon de ñu maa faral di bàyyi na ko mbokk ma wa insaan leen nekk nañ ñoom dama ya daf wa tam di bokk rijaal na góor wala saa naka jigéen ali fa tam ñëw na góor nit waa ko leen ko ñu tam ko def ñaar jigéen doomu laa ko nekk ko yàlla ko ñëw leen yàlla jigéen de am tabi loo jub yéen yéen ci wala wala ñu nga xam naa jikko ko ci dëkkale sama sama xam-xam ñu raxal miraas a ngoog yàlla waxtu ni yonent bi ñu séddale miraas ndax su fekkoon ni yonent séddale miraas ñu jox leen ñu xañ leen waaye saytaan dana def ci seen xel def yëpp ndax nit ñi bëgg nañ àddina bëgg alal bëgg doo xam ne daal waaw lu nekk alal mën na leen jàppabal naka la daloon lamsaar ak li ñu sell yëpp ba yonent bi maye mànge waaw ca xunay ne waaw dañ ne yàlla yàlla baax yonent bi de li ñu sax ak alal mànge yi ñu ko séddale mbokkam yi nga xam ne seen dara ji sax waaw seen dara ji taxoon gis ñu jaay ñu jotagu ba yonent dajal leen ne leen mu leen wax ñu nekk lu ko lañ wax waaw mu ne ndax gëdamu leen ñu demal jële yi ak gàtt yi ngeen ngeen demal ngeen defal yonent yàlla ñu ne ko am kay mu ne yéen moom dund yéen moom dee ñu ne loolu doy na leen jële ñu gàtt yi nag bàyyi leen dañu ñu laaj kari su fekkoon yonent dafa jële miraas bon lu mel noonu dana bëri de moo tax yàlla séddaleel boppam miraas waxtu yi yonent yi waxtu yi malaaka am suñu amoo sa wax na si xutbaam ne yaari laay na laay jëkk wàcc ci miraas ci bakk saare dara yi la tudd doom ak wajut ak jëkkër ak jabar ak nderek baay ak mbokk laay yi mu jiite moom mbokk mu jigéen ci mu di xarit wala mbokk mu góor mu di xarit wala ci wàllu baay moom la tudd laay jooju ñoo ci jëmm jëkk lan faal moom ci wala la raami la wàcc de ñi nga xam ne yàlla jàng na leen jox na leen dana moo di ñooñu rek miraasa ngoog yonent na mooy genn wàll xam-xam te mu rek dàqoonte itam nag moom masala yi néew la yu ñoo takk yëpp ñëw na daanaka ñu saaru ñu saayo laa wéyoon na ca bopp saar yi mott li baa ngi miraas yonent ne yàlla gëdëmut yonentam séddale gëdëmut malaaka séddale ba moom moo séddale boppam miraas diwa moom nangam diwa moom nangam diwa moom nangam li ko waral mooy xalal dafa bari saytaan lool ci doomu adama yi ba su fekkoon yonentoo séddale yonent moo séddale séddale miraas te laaya ji séddale ko ñu xañ ci jegeñaale ñii bi jegeñaale ñii bi ñu ci xañ dara danañ mere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne seen cëb bariwut danañ ko mere te moom ku ko mere rek daal di nekk xéefar ca saadu yàlla bañal loolu nit ñi moo tax mu séddaleel ko boppam kenn du ci sukk yonent xam ne yàlla ko séddaleel mooy genn wàllu xam-xam nag ak masala yu tuuti la lu mu tekki xam-xam ñaar la xam-xam bi lay xattee féegi yaa ngi dund mooy mboolem xattee sariante yi ak li ñuy bari wala boo dee soo dee nañ miraas rek xatte ci yow moo tax ñuy genn wàllu xam-xam xam-xamu dund xam-xamu dee moo am xam-xamu dund mooy mboolem xatte sariante yi xam-xamu dee moo di miraas te wutul maa ngi def saaru saabal ma dem yëpp sa bopp ma dina la ñaata téeméer lañu waaye si ñaar ñaar waaye vraiment ñaar fukki aay dañ ciy caatee bisimilah sa suñu wax xëy ci tudd ci dëgg arrahmaani ko daaji xewal mu ndaaf ñëpp ci àdduna arrahimi ko daaji xewal bu ñu daal ci alaxira yaa ayyuha alladina aamanu ee yéen gaa ñu jamal quran aw foo matal leen di leen xool ci kóllëre su ngeen fasantee kóllëre seen diggante yàlla wala seen diggante nit ñi na ngeen matal kóllëre googu rek matal kóllëre lu war la la dagan leef na lakum ñaa leen bayyinatu la nga xam ne bàyyi na judi kat lépp luy bàyyi na luy gëlëm wala nag wala bëy wala xar lekk ko xaraam na lekk ko xalaal na gannaaw buñ ko rendee dagan naa lekk de yàlla daganal na lu dagal gumba sëpp illaa maa yut laa ndara la def na jàng ko aleykum ci yéen lu may li ñu jàng si léegi ak xaraam-xaram ca aaya xurrimat ñu ñëw si xayra mu di sëy bi ngir moom di yéen way daganal rëbb waa antum sa yéen xuru mun ngay xarma ngeen waaye rëbb dagan na waaye fekk xarmalu la xaj wala dugg na ci xaramu makka ci dugg ci xaramu makka wala nga xarmal xaj nag ak foo ko mën a xarmale daganum nga rëbb dina laa naka yàlla yàq yi dana mu xàtte maa yëri bi lu mu nama rek yàlla nag lépp lu ko soob loolu lay xàtte ndax mooy baramu jaam yi kenn waru koo di ñet ci dara laa yus adama maa yafaan duñ ko laaj lu ñuy def su teeg tur bi yàlla nag lépp looy def dañ la ko laaj lu ci dëng ñu dumat ko yàlla moom kenn du laaj ci lu ñuy def dara lépp lu mu def rek noonu la ndax tooñ mun daam ci jëfi yàlla tooñ mooy soppaliku ci jëfi ci yàlla mu jaamur soppaliku ci loolu keneen mooy tooñ waaye soppaliku ci sa yëf nag kooku mooy mën a soppalikoo tooñ ñu nu jaam am na benn buur ñu ne ndax kenn mën naa def jenn aaya rek ñetti aaya moom alxuraan dàq na ko ne kenn mën na def lu mel ne alxuraan ba mën ñetti aaya ñu ne ndax lu tolloog jenn aaya rek nag nit mën na koo def ba mel ne alxuraan benn borom xam-xam bu fasaaxa te balaaxa géej ci xam-xam yaaram ñu di ko wax na xaas ne jenn aaya rek daal man yaakaar naa ne mën naa ko ñu bil ko moom ñu tëju foofu ay fan génn ne mënuma ko li ma ubbee kaamil bi rek bopp maa yi laa dajeet jenn laa ji rek yàlla xoote na ci digle ci yaari digle ci ndigal loo xam ne ndigal ak mutlax la daganal ci daganal loo xam ne daganal ak mutlax la fekk ci yaari yoon xaraamal lim xaraamal daganal lim daganal tagg boppam ci benn aaya ne mënuma loolu yaa yàlla ñu naan loo ëpp guddoog xool yi te lakum bayyinatu la nga xam ne illaa maa yutla alaykum ghayra muhdi saydi wa antum hurumun xamut ci lim ci yoonal lépp inna laa yaxkumu maa yurid fekk na boppam ci liggéey laa yi mu ne kenn mën def lu mel ne alxuraan saaru maa it lu mu jawaat ci saaru yaa ay yàlla ñu naan amul wala yéen jàng jam alxuraan laa tuhilloo bu leen daganal saa yàlla laay mandargay diine yàlla ñu bañ a rëbb boo duggee ci xurumi Makka ci mandargay diine ji la bokk bu leen xëpp yooyu yooyu tere bon mandarga yi diine yàlla ngeen xoyofal wala sahra bu yaageen weer wa alxaraama réew yi xaraamal xare weer yi nga xam ne xaraamal nañ ci xare itam mooy digg tabaski ak tabaski ak tam xarat ak layu koor wala hadiya du jaageen hadiyu hadiyu nangu jëlee ko ca kaaba it bu ko kenn gaar la mu ngi xaraam na wala xalaay du jaageen yi ñu ràngal ya hadiyu dañ ko daa- dañ koy ràngal ba solal ko mbubb ràngal ko mandargaal ko fatt ci jógam ba yooyu yëpp liñ ci jublu xar sa mbëg ci xolu miskin yi suñ gisee mandargaal yëpp ñu xam ne ay at yi lañu ay sarax la ñu jëm ci ñoom moom miskin yi ñu dëg te dégloo miskin ci jaamu yàlla yu jëm la bokk moo tax ñu def loolu si tax ne loolu ban mandargaal bi gën a xaraam ndax mettal la waaye
tey bi mbir moom di ngeen wooye dagan lu rëbb waaye itam sa yoon xarum mooy xaramal yoon ak itam waaw rëbb itam rëbb ci yoon yi dagan nañu ngeen lekk ko waaye nag du jaagan boo xarmalee def boo xarmal du rëbb dina la xam ne xeexa wax ko mu dana mu atte maa ngi rëbb lu mu namm de yàlla dama atte lu mu namm waaw ci daganal ak ak lu dul moom de te diingat waru ko ca lépp lu mu wax rek loolee wax ja dan mas nañoo daje ñu wax ne ci benn buur ñu ne ndax kenn mën naa wax lu toll ni alxuraan ko kenn mën naa wax lu mel ni alxuraan ñu ne matul yett la ay wax lu tuuti yaare aaya rek wala yaare bind rek ndax mu ne ko te bëde ba mu mel ni alxuraan ci fasaa ak balaaxaan mose ñu xoo fo di ñu wax na xaas su jam na jamoo moo fi ëpp xam-xam gën fa fasaa daq caa bind waxe aram ne ko ndax mën nga yaari bind rek mu ne yaari bind rek mën naa ko ñu ne ko indi ko buur ba ne ko demal nga def ko mu dem loolu sa mu dellu si ne mënuma ko bi ma ubbee kaamil bi bopp maa it laa daje yaa ayyuha alladina amanu awfu bil uqudi uhilla lakum bayyinatul an'ami illa ma yutla alaykum waaye rek mooy li saydi antum hurumun laa yahkum maa yurid benn bind rek yàlla digle na ci yaari ndigal ndigal mutlaq tere na ci yaari tere xaraamal ci lim xaraamal daganal ci lim daganal yoonal ci tagg ci boppam ci benn bind nen mi def mën da def mel ne alxuraan nen mooy ina laa yàqu maa yore yéen yaa ayyuha allazina amanu yéen gaa ngi gëm alxuraan daa tey loo bëgg daga na saayra laay mandargay diine yàlla yi rek bu leen rëbb mukk gannaaw bu ngeen xarmalee wala ngeen dugg xurum wala saxara du jaagan weer alxaraam wa ñu xaraamal xare ci moom bu leen xare ci weer ñu xaraamal xare wala hadiya bu leen daganal hadiyu wala xalaayra du jaagan ñu rangal ya waa ku ñu wax xakuy dafa ñëwoon jébbalu gannaaw daal waaw mu mën la jëlee ñu saaba yëpp xàcc ko daw ñu di ci réewam murtat ñu yaaj nag dajeeg moom mi nga xam ne ay jëlee moom jëm Makka saaba yi ne waa jàng waaw bëgg koo sang yàlla nga leen deereet gannaaw waa xarmal xaj ak dugg xurum waaw bu leen gaarlu kenn rek wala amin na du jaxeen way jublu al bayta néeg ba al xaraam ba di muñu xarmal de koo xam ne mu nga jëm ca kaaba ak yàlla ga kooku kenn du ko gaarlu de ak lu mu mën a def ci mu dëng waaw kooku kenn dootu ko wax dara de yëpp taxoon na mbir moom danañu sàkku fadal wërsëg ñu daal doon ci kaw borom seen ñoom seen xaj yaxantu rek lañ ci jublu woon war li waana nga dem way waa xalal tum dem xeex ngeen nag ci ko ci xarmal parce que doo rëbb leen wala ajri man nakum bu fàggloo leen sanaanu xawin mbañeel ak aw nit an sa dookum ngir bu ñu sagat leen anin masjid yooni jàkka yoo araam yi dañu xarmal an sa sa dookum yéen jéggee bàyyi ci ñoom de kuray su ban diñu banoon ci yéen ba ngeen di néew doole ba génn leen makka kooku bu leen ko seet tey la tax ngeen di waaw jéggi daay ci ñoom ci di leen rayaka waaw xare ñoom ci biir xorumi makka ji de wa taawanu dimbalante leen alal bëri ci topp yàlla wa taqwa ragal yàlla wala taawanu bu leen dimbalante alal ismi ci bakkaat wala odwaani ak ak noonu de wa taqulaa ragal leen yàlla waaw topp leen ko ina la anaka yàlla sa dina xaabi kat di bugal la mu de diine yëpp diine lislaama ci gën a maandoo diine ji maandoo de ñu santaane nañ maandu sax ci suñ maam atta suñ maam sax yàlla ne nañ maandu ci moom de wala ajri ma nakum samaano xawmin an sa doo ko añu nas bi araw an sa doo waaw nit lu mu nekk nekk sa noon rek maandul sa diggante ak moom rek bu mu tax nga toon ko rek rimat xaraamaleef na alaykum ci yéen al maytatu lekk medd yi xaraam na ci judi ka dangoo medd daganu ta lekk mooy lu dee ak boppam wa damoog damu buus damu buus bu ñu rendee lépp loo xam ne waaw wal na ci deret ca fa ñu rendee deret jooju sobe dagaru sa lekk wala mun xinsiira yàpp mbaam tobal yàpp mbaam tobal dagaru sa lekk wa maa uhilla la jiwale baab bi ñu fag rendeem li xayri laay di tudd yàlla ak loo xam ne bañ koy tudd dañ bañ koy rendi dañ ko rendi ci li tudd yàlla bismillah la ñuy rendee waaye bu ñu rendee ci turu keneen di lay bis Muhammad la sax medd la wal mun xanikatu ak aji wàkku ci buum ak loo xam ne gàtt boo xam ne ak buum daf ko njëkk wàkk ko ba nga xam ne àgg na ci àgg waaye boo xam ne ren di mu dee ren di mu dee foofu dagalu sa lekk wal maw koo soto ak wuñu sadda ko xet gàtt boo xam ne dañ ko sadda xet mu daanu ba nga xam ne tey waaw ren di mu dee ren di mu dee dagalu sa lekk wal mu sara dietu a ñu bartandikati ko ci kaw jëm ci suuf ak bu daanoo ca kaw ñu dal ci suuf ba nga xam ne ren di mu dee ren di mu dee dagalu sa lekk wala te yaa teewul dëbb géjjén boo xam ne dañ koy dëbb géjjén ba ren di mu dee ren di wut mu dee dagam sa lekk ba ma akala ak la lekk na ko la lekk na sa booma gar ci moom ak boo xam ne gara ko fàdd ba lekk ca ko ba nga xam ne ak na ci makkaan boo xam ne ren di mu dee ren di wut mu dee dagam sa lekk de ilaa ma dakaytum dara la ngeen jot ak rendeem de lu mooy boo xam ne fekk yeen ca raxoo mooy buñ ko rendee mu nàcc soo xam ne ni fekkuñ ca raxoo nag mooy buñ ko rendee mu bañ a nàcc de lépp loo xam ne waa àgg na ci àgg waaye boo xam ne bañ ko rendee nàccut métti la bu dem ko lekk rek loo xam ne ni fekk nga ca roo ba ba nga rendee nàcc na kooku moom dagan naa lekk rek wa ma tubiha ak rendeef na ko ala nu sugi ci këram de ak loo xam ne dañ ko rendi ci turu këram loolu itam dagan na lekk rek dañ daa rendi seen këram yi lu ci julli ñu rendi la yàlla waa am ta saq sumu ak bu ngeen xàtteelu xat di lef laa mi ci këram de ak di ñu bulu ci waa këram yi loolu nga xam ne saaba ci Quraysh dañ ko daa def waaw loolu itam xaraam na def te bulu ci waa dabi këram Quraysh amuñu woon xam-xam dañu amoon ay këram yoo xam ne ñoom lañ daan jaamu këram yi li daal la mooy ay daga ci bant su fekkee nag ñu tey bëgg nañoo def dara dañoo sakkoon ay bant yoo xam ne dañ koo def ci kaaba ga benn ba ñu bind ca amara ni rabbi benn ba ñu bind ca naxaa ni rabbi beneen ñu bind ca minkum beneen ñu bind ca min xayrikum beneen ñu bind ca xoqlum maanaam dee waaw beneen waaw ñu neenal ko rek su fekkee ni tey nit bëgg naa def lëf daal di ñëw ca bëkk néegam kaaba ga ne ko jaxaseel ma sa bant yi waaw damay wut xatte bu jaxasee mu daj bantab amara ni rabbi mu ne yàlla digal na ma li ma bëggoon a def daal di am rek ne xam na ndigal su fekkee naa ni rabbi ne wax sama borom tere na ma suñ xëccee ci doom doom ji bàyyi yegg ji dem bàyyi di jitu ko ñu ñëw jaxase bant ya bu mun kum génnee ñu ne suuf yi la bokk bàyyi yegg ji suñ bàyyi kum génnee ñu ne tuutal na aram la su fekkee ne xam ñu xëccee dee war na ca wala dee waru ca ñu jaxase bant ya bu xaqul génnee ñu ne dara war na ci waaw bu neenal génnee waaw ñu ne dara waru ci loolu waaw mooy subbulu yi nga xam ne moom lañ doon def ci këram yi de waaw tabbi na ca ba tey waaw xeetu istixaar yi nga xam ne waaw seen ñoo ñaan kat yaa ngi koy def de waaw di ubbi ci kaamil bi di jéem waaw jàppee xarfaan ak waaw istixaar nelaw waaw géwél gi fag waaw rawatina nag waaw bu xaaba yeeg waaw xam kat yi nga xam ne ñoom dañuy nar rek waaw yéen ñoom yéen dina nag ku dikkal bu xaaba dëggal ko wala nga sax bañ ko sax a dëggal waaw yàlla dana la dana dàq sa dana dana yàq sa jaamu yàlla ñeen fukki at lépp loo fa jaamu yàlla yàlla du ko nangu rek loolu yëpp xeeti xeeti këram la istixaar yonent daana ko digle daana xam daana digal jullit ñi na ngeen istixaar ni ngeen di digalee jàng faatiha waaw waaye istixaar mooy julli rek ñaar raaka bii nga jàng Fatiha fële ayal kaafiruun wala loo wattu ci alxuraan bii nga jàng Fatiha ak kul wala aadul lépp ma kaloo aay wala bu koy waxee kumaay saa weer saar waaw soo sëlmalee boo wattoo ñaan bi yéen waxoon waaw nga ñaan ñaan ko soo ko wattu nga ne yow yàlla yàlla ma tànnal li gën ci man boo lépp loo def gannaaw ga rek mooy la gën loolu rek mooy istixaar waaye di ci jéem a xam nag li xewale waaw ak di wër lu xew bu yàlla bi waaw loolu moom kéefar la waaw ku ko def ak ku ko dëggal yëpp waaw safara la jëm saalikum loolu seen système jël topp yàlla de al yawma tey yow sa lan naa ko àlla si na ñaaña safaroo dinañu min diinikum waaw ci diini seen de waaw al yawma yow sa kooku wàcc na ca waa Arafat de ca Hajjatul Wadaa ba nga xamee ne yonent ak si na ajal gu mujj gi de waa yàlla ne léegi nag xeefar yi maa gënoon ne mënatu yonent yàlla gannaaw la ngeen bàyyi seen diine ji de bañ gisee doole ji lislaam di ak kattan yi yonent bi am de xalaat tax taw bu leen ragaleen tax taw ñu ragaleen ñu man yàlla bon nag bu leen ragalati kenn ragaleen man yàlla rek